bi soxal sedd bi ak ngelaw lu bëri li météo xamle ay bés yi tax uh, am ñu demoon géej uh, daal di réer ñeneen ñi moom ña nga ca tefes ga toog di xaar ndax sañu ñoo dem géej ci ngelaw lu bëri li uh, te jamono askanu Ndakaaru ñoom kenn ku ne yaa ngi xool naka ngay def ba mucc ca boobile sedd lu ci mën a am di ngeen dégg ci biir xibaar yi ay dicté yoo xam koo xamante xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu woowee xibaaru tàggat yaram daañu ci ñëw li ci yéene kaay Fatimata Ba yaatal bi nas la bisimilah mbokk yi ci xibaaru diggu bëccëg gi ñu doore ko ak euh, la xew tey ji ci suba euh, ca palais de la république diggante njiitu réew mi ak euh, jëwriñ yi ñu dénk wàllu jënd ak jaay ak wàllu koom fii ci CEDEAO ñoom nag dañu doon giseek njiitu réew mi ngir waxtaane lu aju ci seen diggante ak union européenne ñoom ñoo bokk ci Afrique sow jant loole soxal accord partenariat économique ñu ne sax dem nañu ba daal di juboo ci waxtaan dañ ci ànd ak leerali Thierno Laurent Mendy Daouda Sow ndaje mi diggante ministre du commerce ak finance yi nekk ci CEDEAO ak njiital réew mi doonoon fu ñu doon waxtaanee suivi négociation yi ak union européenne lii di accord de partenariat économique APE doonoon lu fa doon waxtaanee rawatina poñ ya taxoon nanguwuñu APE depuis 2002 mujj nañu cee amab déggoo. xam nga am na point boo xam ne bu jubawuñ ci woon mu ñu tuddee ko woon euh, clause de non exécution boobu CEDEAO dafa noon ko ku andu ci loolu union européenne del na ci gannaaw. ñaareel bi xam ngeen ne également Union européenne dafa doon laaj quatre-vingt pour cent ouverture ñun ñu proposé soixante quinze pour cent Union européenne fekk si ñu ci soixante quinze pour cent yi donc mu nekk loo xam ne également pas bu mag la ensuite li jëm naan subvention exportation maanaam li ñuy jaay jóge Europe di ñëw fii ñu wàññi ci subvention yi loolu aussi Union européenne jël na engagement dootul subventionné dara loo xam ne day ñëw fii ci Afrique moom aussi lu am solo loo xam ne ñu tuddee ko les produits sensibles. kii réew mi doon dalal délégation wu e bi di leen xamal ne mu ngi xaarandi lu bëri ci seenub liggéey. li may sàkku ci seen ndaje mi rek mooy que ne ngeen valider lii di projet wu euh, rapport bi te it ngeen taxaw ba lépp lu nga xam ne loolu ngeen liggéey ci seen ndaje mi mu doon loo xam ne lu ñuy wasaare la ba ñëpp jot si te it mu doon loo xam ne day leer ci bopp ñëpp. ouvert et transparent. yu bees yooyu ñu taxawal ak ñii di waa union européenne dina gën a yombal la ñuy woowee intégration économique ci réew yu nekk ci CEDEAO daf ñu may intégration africaine maanaam euh, sous région bi réew yi mën a gën a lëkkaloo xam nga boo jëlee Sénégal li ñuy jaay ci bitim réew genn wàll gi ci Afrique lañ koy jaay lii accord bi de permettre déjà ci biir CEDEAO ñu nekk benn bopp loolu lu am solo la. ginnaaw ba conférence ministre yi bokk ci CEDEAO adopté bi le projet danañu ko présenté ci sommet bi war a am ci Yamoussoukro ci weeru mars loolu ngir ñu valider ko ba noppi amal ab campagne de sensibilisation ci wàll wi. Daouda Sow ñu wax ci wàllu yoon ak yoonal Farba Senghor tey jii euh, dina wuy ji euh, yoon bu ñetti waxtu jotee ne suut ca euh, palais de justice moom mi fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi ci jamonoy maître Abdoulaye Wade fi mu ne nii xamaguñu lu ñu koy toppee lu ci mën a am daañu ci dellu siwaat ci suñu yeneen xibaar ak na mu gën a yaatoo ñu wax ci leneen jéye ju am fii ci Ndakaaru ci avenue Blaise Diagne am taaxum kaw mu màgget moo daanu benn waaye ñàkk ca bakkanam askan wi di sàkku ci njiit ñu gestu mbir mi wàllu askan wi balaa mbir mi di gën a jéggi euh, dañ ci ànd ak Alioune Diagne Adia tabax bi kenn dëkkul taxaloo ak kër sëriñ bi mu nekk immeuble bu màgget am lu ci màbb bay faat kii di Abdoulaye Diop toll ci juróom-ñaari fukki at ñu fekk ko si suufu xeer yi mbir mi bu mu xewee dama dégg yuuxu yi bu mu ñëwee laa fekk jigéen ñëpp nekk ci biti quoi comme ay jigéen lañ ñu dugg man maa dugg man maay première personne moom man maa tiim paa bi bon xeeri na woon ci kaw maa ko dindi parce que dafa métti woon quoi bu mu ñëwee dama laal fii bon paa bi yëg ma quoi xam nga ñu dawal ay 3 minutes mu ñëwaat fekk mu desende quoi xeeri na ci kawam ci laa ko teggee teg ko fële moo ma ne la ñu woo sapeur bu sapeur ñëw mu ne il police ñëw affaire bu doon affaire bu métti trop parce que paa bi bu dafa dajeeg moom dafay dem ci toilette bi dajeeg moom muy ñëw xam ci la jaaxaane quoi xeer yi dal ci kaw ma dina xeer mag la am na soixante-dix ans mais affaire bi métti trop. daane dooleem. jullit jur na ba pare ba teg kurusam ne mu dugg ci ar mu dugg ci wanoog bi ndox jël buteelam dugg ci wanoog bi xam nga kooku mën nañ ko seedal lislaam am bu jógee boobu damay jóge noonu dem jaay def daane doole mag yow pour lu mu sutural njobootam ma fukki at a ngi nii fii laay jàng ak yu mel noonu mais bi ma demee ñaar affaire bi am suma yaram dafa daw ba ma dem. naam ñi fay xëy artu woon nañu nguur gi di ñaax askan wi ci seeni kaaraange gi nekk ci xottu gerte wante amul benn saafara biñ ci indi ñu fas yéene ñaaxaat nguur gi rekk daanal tabax bi yépp ñuy ñaan état ngir yàlla rey na kenn tey suba dina rey ñu bari dañu ñaan rek état mu ñëw mu daanale ñu bâtiment bi nag sama ginnaaw parce que yàgg na fi ñu fi néewoon ñëpp tuxu nañ génn chaque jour ñu ngi jooy pour ñu daanaleel ñu ko. suba décidé nañ baare tali bi xam suba mobiliser nañ ñu dëkk ci biir kër gi parce que fi laa dëkk samay njo doom yi sama njaboot ñu ngi fi xam nga li ñu dal tey rey na kenn suba mun a rey ñeneen kon balaa muy rey ñeneen il faut ñu yuuxu ba Sénégal yëpp dëkk ko état yëg ko. tabax bi tiim kër Serigne bi du moom kese mën a jur jéeye ci avenue Blaise jaañ dafa nekk mbedd bu bëri ay tabax yu màgget yu mën a indi musiba ci askan wi fay jaar ak ñi fay yëngu ci jënd ak jaay. ca diwaanu ndax la ñuy dem fekki fa Mouhamed Nabi Silla lu fa xewoon ab concert ci université Gaston Berger ñaari rappeurs yi Nit Doff seen diggante daal dafa mel ni euh, neexawul woon ba mujj coow am euh, kenn ca ñoom ab wotoom fiir benn ndongo Nabi Silla ginnaaw ba ñu la nuyoo ndax mën ngaa dellu siwaat ci mbir mi naka la demee foofee ca ndax. waaw Faty Dieng ni nga ko waxee la demee ab concert de rentrée sociale boo xam ni commission sociale bi université bu Ndar ñoo ko doon amal ngir dalal euh, étudiants yi soogee am seen baccalauréat ñëw ci bërëb bi ñu toll ci lim bu ñuy wax euh, ñetti junne loolu doon euh, tax ñoom ñu doon jeexal nag activité yooyu ci concert bu ñu doon amal ci biir université bi jamono joo xam ni nag ñu invité woon ay rappeur mu bokk ci Canabasse ak Nit Dof Nit Dof gannaaw bu mu fekk Canabasse boobu di def ab nekk ci kaw scène bi ci la étudiants yi daal xam ni ci la kii di nit dof yéeg ci kaw scène bi fekk fa Canabasse daal di commencé rek indi ay coow xaqante dox seen biir euh, xoo am ci mbir mi lii di étudiants yi ak ñette woon ci bërëb bi ñu ci bëri di sànni ay doj ak yu mel euh, tax euh, ay kii di nit dof jël wotoom ci jamono ja nga xam ni ca la doon dem di gaawantu di dem moo ak chauffeur am ci la fiir benn étudiant bu tudd mun taga Sall ñu gën ko xam ci ba Baboy Sall moom moo am ñetti damm-damm ci jamono ji mu ngi ci l'hôpital bu Ndar ba léegi kenn bàyyee ko gendarmerie territoriale bu Ndar nag ubbi na ab enquête ci mbir mi ñi bokk ci commission sociale lii di gendarmerie mi ngi leen di déglu ci lép loo xam ne aju na ci wàllu mbir yi na mu demee woon ci boor boobu Canabasse nee nañu dellu na ca Ndakaaru waaye kii dëkk bi fenn foo xam ne nee na fi ci ci biir dëkk bi te itam mi ngi xaarandi daal lépp loo xam ne aju na ci wàllu wàllub convocation wala euh, woote wàllu yoon pour mu dem wuy ji lii daal mooy li nga xam ne mën nañ ko jàpp ci concert de rentrée sociale bu commission sociale doon def ci université Gaston Berger biig ci guddi jote def ab jëya lii di mun taga Sall ñu gën ko xam ci turu Baye booy Sall am ñetti damm damm te ci jamono ji mi ngi ci l'hôpital bu Mohamed euh, Nabi Sylla gannaaw ba nu jugee ca daara ju kawe jooju di université Gaston Berger ñu dem euh, ca diwaanu Njaareem wax ci yeneen daara waaye daaray alxuraan ak euh, ña fa nekk ñoom ñooñee li ñu sàkk mooy ñu ne rek bu nu génnee ci daara yi ñu jox leen seen gëdd maanaam bu nu amee xam-xam ñu jox leen liggéey waaye it rafetal seen nekkin ci askan wi leneen lu ñu sàkk it ñu ne nañu fexe ba daara yi nekk daara yu mucc ayib ni ko nguur gi xamle woon dañuy dem ca diwaanu Bawol Mohamed Diop Talla Samb ci ab bësub ñaan leen ndongo yi ak jàngalekat yi nekk ci daara ruqu kook yi bu diwaan bu Jurbel sàkku ci kilifa yi ñu gën leen wekk bu baax a baax tamit sàkku am liggéey ak njàppale gannaaw bi nga xamee ne mokkal nañ li nga xamee ne mooy alxuraan ba noppi. vraiment am na lu ñu métti parce que daara rôlam dëgg dëgg dëgg daara joxuñ ko ko parce que fii daara ji mooy de vingt moo ëpp li fi moo ko ci daara ji. mais xoolal moins de vingt ans nga mokkal ci mën ci jàng ak xam-xam te boo génnee doo am loo def vraiment loolu métti na quoi ñuy woo Macky ak gouvernement ñu ñëw ñu jàpp ci daara vraiment daara am na lu muy investir ci Sénégal dañu war a jox suñu xaq parce que ñun ñu def suñ droit. suñ devoir ñu ngi def suñ devoir kon suñ droit dañ ko war a jot. responsable yi nekk ci daaru ruuxu kokki bu diwaan bu Jurbel di sàkku ci nguur gi mu lawal bu baax a baax programme am boobu nga xam ne moom la dippe daara moderne ñoom sax jamono ji moderniser nañ bu baax a baax njàngale mi di xaar nag ci yeneen fànn yi nguur gi ñëw jàppale leen. fekkee nag moderne ci wàllu maanaam jikko la ci wàllu jàng fekkee nañ ci moom ñu ngi ci bu baax a baax wax naa léegi la njàng mi man bi ma fay ñëw façon njàng mi fekkoon wuute na ak léegi njàng mi ay jàng. waaw xëcc loo wartu xëcc sidd loo wartu sidd ah baa yoo xam ne du euh, bëri lu mat juróom-ñaari xaraf ci alxuraan yëpp ñu jàng ko benn benn benn façon lañ koy jànge yooyu yëpp dañ ko jox daraja siin rek njàng yooyu ñu ngi fexe ba loolu lu fi dañ incha allah bu fekkee moo dara ci wàllu njàng la kon ci wàllu jikko loolu ñu ngi koy bu fekkee ci wàllu nag côté boobu la ñu ngi ci waaye am mooy amagul lu toll la juróom benn téeméer xale Euh, ni ma ko waxee du gouvernement du keneen koo xam ne am na jël na en charge ne da koy da koy euh, day jàppale daara ji di ko jox dund. jóge ci daara ngir tabax ab citoyen bu yees citoyen modèle lool la mooy ngëm-ngëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara bii ruqu kokki am jamono ji juróom benn téeméeri ndongo ak juróom ñaar fukk. Mouhamed Joy sant nañu la gërëm la ci diwaanu Matam ngir xeex jàngooro euh, jàngoroy Sida askan wa moom li ñu jël rek mooy kalante diggante séeréer ak euh, pulaar loolee nag euh, la ñu daal di dooree xeex ba Matam nag ñaari fan yi yëpp mu ngi amal xew-xew yooyee xew-xew ya ngir jàppale askan wi waaye it ñaax leen ñu xool naka la ñuy def ba mucc ci jàngooro yi Sida ñu dem ci diwaanu Matam fekk fa Ali Bandel Niang suñu ndaw foofu la cosaan ak aada bi ñu jagleel wàllum développement nii kat lañu ñu mën a jàngatee journée culturelle yi nga xam ni antenne local sida service bi ci Matam amal nañ ko donte nag prévalence bi wàññeeku na lool ci fukk ak beneenu diwaan bi ci biir réew mii waaye sori nañu lool yuuxu ni ndam am nañ ko ndaxte nag war nañoo gën a farluwaat ba ak yi nga xamante ni am nañ ko ñu gën ko mën a consolider loole kon tax ba antenne sida service bu Matam sumb ay bëccëgu cosaanu ak aada ci nag dikkal gi nekk diggante séeréer ak haalpulaar yi. jéem a rétablir valeur luy aada. parce que lu bari fii dañuy xeex jàngar suda suba ñu xeex affaire pédophilie après ñu xeex affaire góor jigéen mais loolu yëpp du ko indi du perte de valeur te valeur yooyu mu ngi ci suñu biir sot cosaan ci lañu ñu bu fekkee ne au moins dañ ko teg teg ko feneen loolu mooy indi li ñu gis léegi dañ ñee dëkk boo xam ne soo amul ngëm amoo cosaan xale ya fa ne wala nit ña fa ne dañuy doon ay xob yoo xam ne lu ñëw yóbbu leen en tout cas ñu rafetlu ñu ngi félicité di sargal si la service surtout antérieur bi nga xam ne Aliou moo koy yor. ak waa jàngu bi si liggéey bi nga xam ne ñu ngi liggéeyal diine waaye ñu ngi liggéeyal jàmm réew mi loolu lu am solo la ñu koy rafetlu. bëccëgu cosaanu ak aada yi ngir yee askan wi ci lu ñeel jàngoro yi sida géwélu tukkuloo yi góor ak jigéen feggoo woon nañu ak benn troupe ba jóge ca Joal Fadiouth bi nga xamante ni ci dirub ñaari fànn jot nañoo wone mbir yu rafet yi nga xamante ni lalu na ci wàllum cosaanub séeréer ñu leen ko waxee ci bopp xibaar yi gëstu bés bi ñu jagleel ko ngelaw lu métti li météo ah, xamle ñu koy ah, dund nag fii ci ah, Ndakaaru ay bés yi ba tax na sax fële ca diwaanu Kayaar moom am na kenn nit ku ñàkk bakkanam ñetti gaal it yàqu nañu ñu xayma ko ci ay millions yu bëri ca diwaanu Rufisque naka noonu ñetti ndaw ñoom am fukki ak juróom ñoom danoo réer géej Idrissa Amar Khadim Fall ak ak euh, Talla Sall ñoom nag euh, ci euh, ASER ji ci suba la ñu daal di duggoon ci seen gaal wutali géej dañu demee ñenn ba ca guddi ci la ñu woo seen i mbokk xam leen ne seen motoor dafa paan boobaak léegi seen i mbokk gisagu leen gisaguñu leen ñu ngay wéy di wéyal seenuk seet di xamle rek ni météo ñoom ñoo waxoon ngelaw loolee fële ca diwaanu Yoff moom nappkat ya dañoo ragal dem géej ña nga toog di xaar ñu ne nag ni ko météo xamle rek moo tax demuñu ngelaw la daal bëri na lu uh, ëpp ñeent fukki kilomètre waxtu wu ne ñu ne nag loolee moom moo tax ñu uh, toog ci uh, tefes yi dañ ci ànd ak Nafisatu Sila Yusu Baro ci ay leeral demoon nañ ci yenn ci tefes ci diwaanu Yoff météo waxoon na ko ni bu kenn daal di dem nappi géej ndax ngelaw dana fa bëri loolu mu doon wax joo xamante ne nag nappkat yu nekk ci village bu Yoff dañ cee wéy vendredi la fi accident ci ver vers six heures secteur heures si la ngelaw li ñëw commencé commencé di ngelaw mais nag météo waxoon na ko quoi. kenn demul Joal seen euh, Sendou tubaab Jalaaw ñoo ñoom ñoo ngi fi. depuis ba mu ko waxee ba léegi tamit ngelaw loolu lañ siy gis bari na torop torop torop di fi nekk ëpp na ñeenti junne gaal te benn demu si te dama xayma rek. ay fan a ngi nii nag gaal yu bëree bëri dañ leen a accosté ci tefesu yoof bi mu doon ay fan yoo xamante ne benn gaal la tëmbul mu metti torop nag ci nappkat ndax duñ ci am jën bu ñuy jaay. bi ñuy dem nii tamit géej di neex jën bi dese naa bari lool. ñu si taxalaatu di am as tuuti loo xamante ni tamit moom la ñuy suturloo kon nu géej gi naqaree nii tamit day gën a métti si ñun rek. doo jaay parce que li nga jën nga koy forcer glacé boo heure bu géej gi neexee kii wala client yi commencé ñëw nga commencé jaay. yow mi napp doo mën dem géej parce que boo demee géej da ngay yàqule bu weesoo sax nappkat yi ñàkkum jën googee nag dina laala ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi koy jaay rawatina nag jigéen ñi koy jëndi ngi togg ko seeni kër xam nga jën bëri mooy loo daan am 10 000 mën ko am 5 000 wala 7 000 mais fi ñu toll prix bi moom dañ lay liñ lay mën a wax mooy prix fixe la rek parce que amul ni comme ni daan amee en même temps gaali ni ñu demee dañuy dem fere def seen ay fere def yëpp du am dara ndoxu kese la ñuy teerewaat lu doon jar 3000 instant yi mën na jar ba 5000 6000 buñ nappi jiwul nii instant yi day gën a mitti. météo nag li mu waxoon leer na dina am ay ngelaw yoo xamante ne dina ñuy daw lu tolloog ñeent fukki kilomètre ci heure bi ci diggante ndakaaru ak ndar waaye ñu ngi séentu ab dal suba ci talaata ji. ñu euh, des ba tey ci euh, géej gi ak euh, ngelaw li ni ko météo xamle woon ñu ngi ko waxee woon sànq ci diwaanu Rufisque ñetti ndaw yooyee daal di demoon géej seeni at jàpp fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ñaar fukk ak juróom ñu ne nag gis nañu leen fële ci diwaanu yéen dara jotu leen kon jàpp leen ne Idrissa Amar Khadim ak Talla Sall seen i mbokk fi mu ne nii ñu ngi sant bu baax ndax ñoom gis nañu leen ca diwaanu yéen di fàttali ne ca samedi bi. la ñu euh, tëmboon euh, mujj nañu feeñ euh, ci diwaanu yenn ñu des ba tey ci sedd bi ci diwaanu ndakaaru fi mu ne nii nag askan wi kenn ku ne yaa ngi xool naka ngay def ba mucc ci sedd bi bu fekkee tu xarak lu ni mel ñu bëri ñoom ne dañuy jël mentalato wala li nga xam ne moom mooy karité di ko diwoo ñeneen ñi moom rek daal di koy jàpp ci kol yi ak kaala yeeg pull yi dañ ci ànd ci jàngatu Maymuna Njaay Mar Dieng askan wi ku ci ne ak na ngay moytandikoo poussière bi ak ngelaw li. dama gaaw am courant d'air léegi man damay sol yére bu diis damay teg la voilà def ni col bi pour bañ a am kii waaw courant dama ko lem nii mu takk ko ba pare dugal fi ñaari côté yi bi mu jël tëre bi bouton bi bu bu ko si biir. ma xëy tey mu ngelaw quoi donc xam nga mu nekk nii boo xam ne dafa dama ragal sedd. et puis teel bi ma teel a xëy ma jóg fajar donc moo def moo tax ma def nii sol sama mbaxana quoi donc dama dama sol sama kii gis nga lu ma sol nii dama sol ñetti mbubu taxi bi ba pare sol sol sol kap sol mbaxana sol mbaxana bi gis nga. mbaxana laa yor di koy muur samay nopp ba mu dëgër ngelaw bi man sonalu ma quoi. boo amee mbaxana bu baax tam c'est très important quoi maanaam mu bañ a dugg si si trou yi quoi loolu moo lay en fait mun a jàppale tuuti quoi nga mun a liggéey sa liggéey bu bañ la sonal lenn lenn coono yi quoi. man noonu laa ko gisee. ñu bari nag dañoo xalaat ni diw sa yaram ba mu tooy ak sa bakkan rek moo la ciy génnee. man tiraatu laay jël rek tuñ bi bu kii pour bañ mu xar affaire yooyu noonu ma diw si affaire la demee quoi xam nga laal si bakkan yi affaire yooyu noonu des fois tam def si ndox xam nga laal mantilaatu bi si ndox bi diw sama kanam affaire yooyu. karité bi daal boo nga diwoo karité bi sa bakkan yi nga def si mentalaton bi loolu daal moo ñuy xaw a sauvé tuuti daal di sol lu diis jël lu diis sangoo gis nga ma nii jël sama mbàjj tegoo. bu fekkee ñu bari ñu ngi def seen kéem kàttan ngir may tëdduku ngelaw li ak poussière yi am ñoo xam ni ci la ñu nekkoon rek la ñu nekk ba tey maanaam wutuñu benn pexe. ñu wutul euh, pexe kii xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu woowu yooyu Abou Thiam lay wuyoo mu leen di baaxee ci ay euh, digtal bokk na ci euh, di sol lu sedd waaye it diw bu baax a baax def ndànk nag ci li ñuy diw si tuñ yaag bakkan yi ndax mën naa indi gàllankoor dañ koy déglu moom Abou caam nekk ca centre de santé bu wakkaam ay kàddoom may mën a njaay moo ko taataan ànd ci ak Mar bu nekk ngelaw bu sedd wala ngelaw bu tàng yépp dina xam ne bakkan yeeg bët yeeg nopp yi comme que ñoom ñoo ñoom ñoo amul mbubu dina leen xaw a sonal tuuti donc lii baax mooy kaala am benn kaala boo xam ne day muur nopp yi day dina muuraale quelque fois sax bakkan bi loolu lu baax la lu mel ni bakkan bu demee ba sedd bi jàpp ko walla tàng gi jàpp ko dina ko mën dina ko sonal ba quelque fois mu xaw ko xar loolu pour loolu bañ a am def si benn produit boo xam ne da koy euh, nooyal baax na si donc dans ce cadre là bu dee mentolate boo xam ne lii lu fort lu ëpp parce que menthol bi aussi il faut que dosage bi baax. lu mel ni bakkan par exemple dina ko xaw a euh, sonal ba mu am ay fissures yu ndaw te fissures yu ndaw yooyu euh, buntu la pour jàngoro bi jàngoro yi nu mu jaar pour dugg si nit. waaw jàngoro yoo xam ni jàngoro yoo xam ne ni ñuy wax jàngoro viral lu mel ni grippe par exemple. fi lay fi lay ci fi lay jaare wala jàngoro yi di indi xurfaan yu bëri ak sëqat yi Maymuna Ndiaye ñu lay euh, jaajëfal ganu euh, xibaar yi Léon Mansal nekk responsable service euh, météo maritime fële ca ANACIM ñu lay nuyu di la dalal ci plateau bi. ñu xamle ne météo joxe woon na xibaar ngelaw lu metti ul bi ñu ngi ci doon wax di ci waxaat ndax mën ngaa dellu waat ci ci ci ci loolee lan moo ko waral ak kañ lay durer maanaam. ok merci kon depuis semaine passée. la ñu lancé benn avis euh, par rapport euh, xul bi maanaam euh, ganax bi ak ngelaw bu fort donc dañu ko lancé à partir du vendredi donc ba léegi ñu ngi koy prolongé parce que dañu xoolaat suñu jumtukaay xool ni day dem day continuer ba mardi soir c'est-à-dire mardi ci ci ngoon waaw talaata ci ngoon ñu bëggoon xam rek lan moo ko waral. voilà euh, donc euh, xul bi euh, lan moo ko waral parce que euh, depuis semaine passée comme ni ma ko waxoon sànq. Mhm. dañu constaté au niveau du bassin océanique. Mhm. c'est-à-dire lu ñuy wax ci français creusement de dépression. Mhm. c'est-à-dire xaw koy wax. ci ci wolof bi waaw voilà donc déjà dépression c'est des termes scientifiques. donc creusement successif de de dépression. moo entraîné euh, resserrement du gradient au niveau du kii gradient boobu moo tax ngelaw bi fort te ngelaw bu fort boobu bu mooy agir sur euh, la surface de la mer te mooy indi xul boobu donc xul boobu day propagé wu forme d'onde ñëw ba ci tefes bi donc su forme doon mais mën naa mën naa indi jéye mais lewoon lu leneen lu ñu nemmeeku mooy mm. météo saa su ne day joxee ay xibaar mm. ngelaw li gannax beeg yooyu mm. mais li ñu nemmeeku mooy ñu bëri ci nappkat yi dañuy dem géej euh, misaal li xew ca Kayar ak Rufisque ndax euh, nappkat yi euh, dañoo jotul ci xibaari météo wala lan moo waral lu ni mel nappkat yi jot nañu information bi parce que déjà ñun au niveau de la météo mm-hmm. dañu am benn système bi ñu am euh, système SMS c'est-à-dire euh, dañu répertorier un ensemble de numéro waa DPSP ñoo ñu ko envoyé mm-hmm. ak waa ASMAR ak euh, tous les autres services techniques mm-hmm. donc bu ñu amee informa alerte dañu koy def sous forme SMS balancé ko dans tous les numéros de portable te waa DPSP aussi ñoom dañuy def seen liggéey di jouer un rôle de relais. Mhm. dañuy dañuy dañuy jàllale sunu information yi auprès des usagers finaux maanaam euh, mhm. euh, kii nappkat yi. Mhm. donc jot nañu information boobu bon le problème nekk euh, dama xamul lu tax ñuy malgré cette information ñuy insister dem. est-ce que ñoom message yooyu ñoom dinañ ko mën comprendre aussi. si mënuñu ko comprendre parce que au-delà de de parce que am nañu ay relais. ay relais au de kii mhm. ñooñu dañuy utiliser euh, information yooyu di di dañuy utiliser information yi mais nappkat yi dañuy wéy di dem ñu am mm-hmm. léeg-léeg ñuy faatu am ñuy am am ñuy am na ñoo mm-hmm. xam ne sax bu ñu ne la xibaaru météo bi dañu naan euh, météo bi kat bu waxee lii parfois ñoom leneen la ñuy gis donc mu mel ni aussi euh, est-ce que foogoo ne ne waxtaan aussi war na mën a gën a yokkuwaat diggante yéen ñi nga xam ne yéen a ak ñiy dem géej parce que yenn a pratiquement li ngeen di liggéey effectivement euh, am nañu liggéey bu bari bu ñu war a def parce que mm-hmm. dañu dañu doon discuter ak sama directrice Euh, pour ñu organiser euh, li ñuy wax formation itinérante c'est-à-dire dañuy déplacer dem sur les sites les quais mm. euh, sur du du Saint-Louis mm. ba Casamance pour jéem a sensibiliser nappkat yi sur les dangers en mm-hmm. donc programme boobu Euh, la ñu bëgg a kii mais ba léegi euh, amaguñu euh, un financement. parce que yooyu ça demande vraiment de de l'argent même SMS yi may wax sànq. Mhm. tout ça aussi boo xoolee ci ci ginnaaw aussi laaj na ay financement yu bëri parce que déjà. Mhm. booy envoyé ay milliers de numéros. SMS mhm. pour sur des milliers de numéros donc. loolu a un coût financier. donc ce que du ñàkk jumtuwaay léeg-léeg mooy tax parfois liggéey bi du mat. Euh, voilà ci ci ci loolu loolu mun na ko expliquer aussi. Mm-hmm. mais ba léegi ñu ngi def suñu effort pour. pour euh, si nappkat yi jot suñu information yi. Euh, Léon laaj bu mujj bi rek kon fii ak talaata kenn warul dem géej yan tegtal ngay jox nappkat yi nga xam ne dañ lay seetaan. vraiment maa ngi ñax. sama mbokk nappkat yi. Mhm. vraiment ñu xaar d'abord situation bi euh, mu jàll. Mhm. parce que defe naa yàggul parce que fii ba talaata donc euh, euh, defe naa du wàññi dara seen activité. Mhm. ñu xaar parce que loolu moo moo gën ñuy dem di jànkonteel ay problèmes yoo xam ne. mën nañ ci ñàkk seen bakkan voilà mën nañu ci ñàkk seen bakkan Léon Mansal nekk responsable service météo maritime euh, fële ci ANACIM ñu koy jaajëfal ci euh, wuy si bi bëggoon wéyal waxtaan wi waaye waxtu wi dañoo dab tàggat yaram gannaaw bàkk bi lay doon football lañ koy dooree port autonome bu euh, Ndakaaru moom nag euh, ñàkk na jongante bu njëkk euh, ci kanamu olympique de Ngor ki yore ki leen di tàggat moom li mu ñaawlu mooy arbitrage bi ci gis-gisam ki leen doon arbitré tëddul tëraayu ndey ji seex dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione Youssou Baro ci ay leeral olympique de Ngor daal di def ay pexem ànd ceeg dal bu mun a dóor club bii di port bu Dakar but bi nag ñu ngi ko dugal gannaaw bi ñuy jongante lu tollu ci fukk ak juróom-ñeent ci ay simili ki ko dugal moom mooy du Lamine Mané club bu Ngor bi daal di amaat beneen ndam gannaaw ba nga xamante ne toog na ci ñett ay journée yoo xamante ne amul benn yoon lii di victoire. dañoo amoon ay joueurs yoo xam ni nag ñu ñëwaguñu woon mm, euh, ñu yéex a ñëw biñ ñëwee fa ñu rattrapé leen pour ñu am niveau ñu nekkoon. avantage bi ci xaw am tuuti rek mooy dañ avancé woon suñu benn match contre jàmbaar semaine bële passé joué ko donc amoon nañ dix jours yoo xam ni vraiment mënoon nañ profité sur le plan physique malgré nag état terrain bi gis nga ni mu mel tey terrain bi nekkuloon dans de meilleurs baaxuloon comme ni mu war a baaxee ba pare dafa amoon effet ngelaw bi xaw ñu sonal tuuti quoi donc lu vraiment lu rafet lu ndam bi ñu am ni tey quoi. defet gi moom mooy guléet bi ñu dooree championnat ba léegi waa port autonome de Dakar ñu ngi leen di dóor a dóor loolu nag daal di yemoo ak juróom-ñeent bi. am naa lu ma métti parce que match bi Ngor amul sa occasion de but Ngor pendant quatre-vingt-dix minutes Ngor amul occasion de but mais Ngor dugal na but boo xamante ni su góol moo glissé arbitre bi nag il n'était pas à la bu fekkee ni nii la ñuy fubalee championnat Sénégal mun nañu bañ a dem Afrique chaque fois bu ñu demee gars yi dóor ñu ñu dellu parce que football bi pour mu baax arbitre yi dañ ko war liggéey ñu bañ a borborloo olympique de Ngor bi nga xam ne moom mu ngi nekkoon ci zone rouge bi ak ñetti poñ yi nga xam ne daal dina koy amee ci boobule match dina nekk loo xam dina am solo lool. ñu wax ci beneen euh, jongante euh, doomu wakaam yi ñoom euh, dool nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pikine loole nag benn bal ci dara Cheikh Tidiane Dione Papa Xaali Ndiaye ak Cheikh saat bu jara ci ay leexal Prit AS Pikine di am jënd ci championnat bi ginnaaw juróom-ñetti journée bu ñu footballé juróom-ñetti simili la Omar Goudia bi taal caaxi AS Pikine def kéem kattanam ngir dellu si waaye mujj lànku. non mu nekk defet bu nga xam ne bii euh, wax dëgg yàlla xaaruñu ko woon parce que quand même je pense que au vu du match amoon nañu possession ballon bu bëree bëree bëri bëri euh, jël nañu nag teel bi boo xam ne bii xëy na contre le cours du jeu sax laa ko mën a waxee ci première euh, période bi. mais après peut-être adversaire bi def na li nga xam ne lii xëy na loolu la waroon def pour mën ko défendre je pense même que à la limite def na ko ba nga xam ne bi xaw nañu pourrir match bi tuuti. waaw Wakaam euh, bég ci ndam bi ak euh, football bi ñu wone waaw yombuloo ndax Pikine dafa nekk équipe bu naqaree football euh, suñu défaite bi passé bi ñu am mbur metti woon nañu trop ñu waxtaanaat liggéeyaat. Eh, yàlla def na li ñu doon euh, wut tey am nañ ko. Euh, liggéey si si si football dafa am lu ñuy wax plaisir xaw ma nu ñu koy waxee ci olof mais dafa am plaisir donc choix boobu moom la ñu essayé garder malgré la la défaite du match passé et loolu tey ji nii moo moo ñu may je pense ndam. AS Pikine ak jël bi raté première place bi ginnaaw nërmelu bi port def ci terrain bu Olympique de Ngor ñaari tali ak Casa Sport def match nul 0-0 0-0 tamit ci diggante Stade bu Mbour ak Touré-Kunda Linguère Duc Tembo ku nekk dugal benn bal ci àllarba ji nag match yu mujj yi dinañu ko amal ci diggante Sunéor Jambar Jaraaf Yégo Cheikh Tidiane Diaw li ci yéenekaay yi ak dal leen jàmm ci li ci yéenekaay yi waa APR ñu ngi dal ci kaw Amadou Mahtar Mbow l'observateur ne ñu bokk njiitu réew mi parti daanaka ñoom ñépp ànduñu ci constitution Mbow bile ku ci mel ne Moustapha Diakhaté di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ak kii di Omar Youm ñoom jàpp nañ ne Amadou Mahtar Mbow yemut ci liñ ko sant ci Sud Quotidien Moustapha Diakhaté ak Omar Youm wane seen ñàkk ànd ak constitution bile ndax ñoom jàpp nañ ne du yoon nga ni rek ku jiite parti ba yegg ci nguur gi dafa ko war a jox keneen ba tey ci mbirum rapport commission nationale des réformes institutionnelles boobee professeur Ismaïla Madior Fall di ministre conseiller ci njiitu réew mi ne ci le quotidien commission bi dafa defut liñ ko sant ba pare nag dugg sax nag ci leneen loo xamante ne xel mënu ko nangu lu ci mel ne tere njiitu réew jiite ab parti loolu Ismaïla Madior Fall ne c'est pas pertinent maanaam amul solo constitution boobu bile daanaka nekk ci xëtu moom la xëy yéenekaay bi tënk yëf yi ne Macky Sall kay dafa xotti constitution boobule ndax article yu bëri yu nekk ci boobule constitution njiitu réew mi ak ñi mu àndal gisuñu ci seen bopp mu mel na Amadou Mokhtar Mbow ak ñoñam seen constitution boobe coow la jur. président Macky sal nag moom am na leneen lu mu lijjanti ndax partiem bi ma ngay jax-jax yi le populaire ne apériste yi ca Mbàkke daal dañ fa jàppante yéenekaay bi ne diggante Omar Ndiaye Anglo Mala ak Moustapha Cissé Lo ki ci jiitu moom dafa jàpp Pistolero du moom rek moo nekk kàngami APR ca Mbàkke moom Omar Youm ne gëmut Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo itam tontu ko ne ko man bu desoon ci man rek ba tey jóge naa foofee président Macky Sall kay moo ma fa bàyyi mu mel ni foofee xumb na lool waaye ca mairie bu Mermoz Sacré-Cœur itam li fay xeeñ neexul Walf Fadjri ne jege ñaale Macky Sall yi li ñu bëgg moo di jële Barthélémy Dias ca bopp mairie ba benn cousine Macky Sall daal xelam mi ngi ci fauteuil doomi Jean Paul Dias bile mu mel ne loolee nag mën naa indi coow diggante Macky Sall ak ki alliéem moom Macky Sall moo nekk ci xet bu njëkk bu l'observateur yéenekaay bi wax ci wàccaay groupe consultatif bu Paris président moom li mu bëgg moo di am ci xalaat ak gis-gisu ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ay jëwriñ yoroon fi budget wala finance loole yépp nag aju ci projet Sénégal émergent kii moom wax na li mu gis ci tekk tekkaaralu iseen Habré bi saa yuñ koy déglu maître El Hadj Diouf ci le populaire ne ki fi nekkoon njiitu réew bu càdd xolam moo jeex ci Sénégal duñ ko wor ba tax na daal saa yuñ ko wooloo patt pataar lay def day na waar tàggat yaram ma doore kook lamb ji Ama balde moom wax ci combat bi war a dox diggante meek Malick Niang doomi Falaye balde bi ne man li ma jaaxal moo dina ne ñépp dañoo jàpp ne damay daanu ci combat boobee ba tey Ama ndax gis nañ fii ñiñ fi defoon ay favori ñu daanu stade moom xëy ci Sadio Mané di doomi Sénégal bi nekk ci Salzbourg moom nag muy wéy di def liggéey bu am solo di fa wone boppam ndax si ñaar fukk ak ñetti mat match moom Sadio Mané duggal na fukki but ak ñaar loole nag nekk lu am solo torop ci waa sport nataalu Messi ne si fang yéenekaay bi daal ne Messi kenn du moom ndax raw na légende football yu Real yi fi nekkoon ku ci mel ne Di Stefano nga xamante ne amoon na fi lu toll si ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari but tolloo tey nag ak kii di Raúl González am lu toll si ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti but moom Messi daal yem na ñëpp ñu yendoog jàmm Fatimata Ba ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci euh, teewlu bi yenn jotaayu xibaar rédaction bu Télé Futurs Médias ngoon euh, ci euh, wolof ak nasaraan yéen di jàmm